dafa amoon benn bés béykat bu demoon ji bi muy saw toolam nag lenn ci pepp mi wadd ci yoon wi ñu joggi ci picc asamaan yi lekk ko lépp leneen wadd ci béréb bu bari ay doj naka la sax rek daldi wow ndaxte suuf si moom tooyul woon leneen nag wadd ci biir xaaxam ya noonu ñu ànd saxandoo xaaxam ya tànc ko li ci des dal ci suuf su baax sa jiw ba sax màgg ba meññ ay téeméeri doom bu ci nekk. kilifa gi lu tax ngay waare ci ay misaal ci kanamu mbooloo mi. may nañu leen yéen ñëpp ngeen xam mbóoti nguuru yàlla. waaye ñi ci des dama leen di wax ci ay lépp ngir ñuy xool te duñu mën a gis tey dégg te duñu mën a ràññee. lii la léeb bi di tekki kàddu yàlla gi nag mooy jiwu wi ki féete ci yoon wi mooy tekki ñi nga xam ne ñooy dégg waaye seytaane dafay ñëw këf kàdd gi ñu def ci seen xol ngir ñu bañ a gëm te yàlla musal leen pepp mu nekk ci bërëb yu bari ay doj mooy ñi dégg kàddu gi ba noppi nangu ko ak mbég waaye wax ji saxul ci ñoom ab diir bu ndaw dong lañuy gëm waaye bu natt bi agsee noonu ñu daldi dàggeeku ki jot jiwu ci xaaxaam yi mooy ñi dégg kàddu gi waaye nees tuuti soxla yeeg alal ak bànneexu àddina tànc leen ba duñu mën a àgg ci mat ki jot ci jiwu ci suuf su baax si nag mooy ki dégg kàddu gi te noonu mu denc ko ci xolam bu baax bu gore te muñ ba jur bés njëriñ lu bari